déglu leen bés bi yegsi na dimanche 3 juillet 2022 stadium Iba Mar Diop ñu ànd ci ak les ñu daal di teg 3 millions woote ba pat bu mag ni fair play nag la ñu woote jël làmb ji daal di koy sargalee le roi des arènes Modou Xarañ Lo ci bésu le 3 juillet ñu ngi ciy xaar na képp koo xamante ne ni champion nga ndaanaan nga di dundu lamb bés boobu bésu lamb la bésu aada la bésu cosaan la ndax bés bi nday faatu aadama Jali la voix d'or moo koy way ànd ci ak keneen ki nga xamante ne ni moom mooy Maodo Faye le grand tambour dugub bi nag 2000 francs dong la foo mën a toog loose bi 5000 francs